diine wal xayaat di émission boo xamante ne si ne Tacko TV moo leen koy jagleel ànd ak seen mbokk seen oustaz Mounirou Fall diine wal xayaat di émission boo xamante ne si ne dinañ wax ci jamono wax ci diine wax ci lépp loo xamante ne si ne doomu aadama la diine xayaat di émission buy am fii ci Tacko TV alxamis bu ci nekk ak oustaz Mounirou Fall ak diine xayaat diine xayaat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 ñaan yàlla yal na yàlla boole ñu bal xam naa comme niñ ko tàmm defee alxamis bu jot rekk ñuy ànd ak yéen ci seen programme bi di diinu wal xayaat ah, ci kàddu gi ngeen ci ànd ak seen mbokk Muniru Fall ah, xam naa di ndokkale mbokki jullit yépp ci xew-xew bu mag bi nga xam ne moom lañuy jublu mu di bisu cant di ci ndokkale ñépp di ñaan yàlla yal na yàlla yóbbu ci jàmm lépp luñ ci def ci ay jaamu yàlla ak ay sarax ay berne yal na ko yàlla nangu naa loolu moo ñu yóbbu ci suñu waxtaanu tey ñu fas yéene waxtaan ci benn tom bu ñuy wax naka la ñuy def ba bokk ci ñi yàlla di tudde achakirin ñi nga xam ne ñu ngi sant ca dëggi dëggi sant mu ne bi si njëkk mooy balaa ñuy bokk ci chakirin yi dañuy nekk ñoo xam ne ñu ragal yàlla lañu tey jëf jëfe ay ndigalam loolu mooy bi si njëkk balaa yàlla di la boole ci chakirin yi mooy dangay ngay wattu yàlla bàyyi ko xel di jëfe lim la ndigal su boobaa mun nañ la boole ci shakirin yi ndax yàlla moo ko wax ci alquran naan wala qad nasarakum allahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaa laallakum tashkurun mu ne yéen julli yi ngeen xam ne keroog badr ah du seen njàmbaar moo leen sauvé mais yàlla moo leen dimbali te booba ngeen nekk ñu xeebu kon nag yàlla moom mu dimbali leen na ngeen ko bàyyi xel bu ko defee ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi sant gën dëggi dëggi sant bokk ci shakirin yi euh, Ibn Ishaq wax ñu ne fattaqu nii li muy tekki mooy shukru ni'amati waaw na ngeen ni sant samay xéewal ndax keroog Badr kat bu fekkonte ne yàlla seppi na ci loxoom làmbaay dina ñaaw kon nag xéewal googu yàlla xéewale leen ba ngeen daan ñoo xam ne eh, xay na ci eh, ci eh, ab lim ñoo leen ëpp fuuf kon xéewal googu yàlla xéewale leen nee na na ngeen ko ci sant te moo di ngeen di ko ci bàyyi xel ñaareel ba mooy alqanaatu wa rida bi ma xasama allahu lak bokk na ci li tax nit bokk ci shakirin yi mooy nga doylu te di dàkkoor kontaan ci li la yàlla sédd lépp li la yàlla jox rek nga nga nga nga ànd ci xel mu dal ànd ci xol bu sedd ndox yonent bi sallallahu alayhi mooy wax ne kun qani'an takun ashkara naas ne na nga nekk ku doylu boo nekkee ku doylu dinga bokk ci ñi gën a sant ci nit ñi waaw nu moo ñu ko nettali mu ne dafa am euh, benn waay boo xam ne dafa mës a dem ci benn boroom xam-xam léegi bi mu demee ci boroom xam-xam bi mu dem fa di fa tawat ak ñàkk goo xam ne suñu boroom moo ko ko teg bi mu demee boroom xam-xam bi ne ko ah, waaw yow dama lay laaj ndax tey ji sa bët yi ku ko weccee woon ak junni dërëm di nga d'accord ku ne la woon kaay ma jox la junniy dërëm te nga din te nga ñàkk sa bët yi ndax di nga d'accord waa ji ne ko déedéet mu ne ko waaw ndax ku la la woon kaay ma jox la junniy dërëm te nga ñàkk sa làmmiñ wi ngay waxee ndax dinga ko nangu waa ji ne déedéet mu ne ko waaw ku ne la woon kaay ma jox la junniy dërëm te nga nekk ab dof maanaa ku xel ma matul ndax dinga ko nangu waa ji ne ko déedéet mu ne ko ndax ku ne la woon kaay ma jox la ñaari junniy dërëm te nga dagg sa loxo yi ak sa tànk yi ndax dinga ko nangu waa ji ne ko déedéet boroom xam-xam bi ne ko yow kon xanaa rusoo di jàmbat sa kanamu boroom te mu jox la loo xam ne mat na juróom fukki junniy dërëm ndax boo boolee say bët yi nee na la woon bët yi yow ku la ko wecce woon junniy dërëm nga lànk junnee ngi noonu mu ne lamiñ wi junniy dërëm nga lànk muy ñaari junni sa xel junniy dërëm nga lànk muy ñetti junni sa tànk yi ak say loxo ñaari junniy dërëm nga lànk muy juróomi junniy dërëm mu ne loolu nga lànkkat am na ko xam ni may na la ko te moo suñu boroom te fayoo ci dara kon kooku nga xam ne moo la may loolu lépp ba pare ngay wëlbatiku di jàmbataat ci moom ak ñàkk gum la ñàkk nee na loolu day war nga ko comme yàlla may na la yaa ngi am say bët yaa ngi am sa lami di wax say soxla yaa ngi am say tànk di dox say soxla nee na loolu doy na cant waaw kon nag bul jàmbat li nga xam ne moom la la suñu borom teg ci ay ay ay ay ak ñàkk waaye mu am beneen bu xaw a nduróog moom te xaw a nekk sens contraire am mu ne benn waay yàlla daf ko nattoo dafa silmaxa yàlla dafa muur ay bëtam waaye tànk ya dafa dagg loxo yi dafa dagg xanaa xam ne foofu la nattu yam ne benn waay nag benn bis benn waay ñëw dugg ci këram fekk ko muy sant yàlla naan maa ngi sant yow yàlla maa ngi lay sant ci xéewal gi nga ma xéewale maa ngi lay sant ndax ci wéral gi nga ma wéral ci loo xam ne nattoo nga ko ñeneen ñi dul man jàmmal gi nga ma jàmmal ci natt yoo xam ne natt nga ko ñeneen ñi dul man daal maa ngi la ciy sant waaye li ma def ngëneel yi ma may ma gën ñu bari ci ñi nga bind maa ngi la ciy sant nee na waa ji daal di jaaxle ndax ki nga xam ne dafa silmaxa nekk kuñ dagg ay loxoom nekk kuñ dagg ay tànkam ba pare mu naan maa ngi lay sant ci ni nga ma def xéewal gi nga ma may te ma ëppalee ko ñu bari léegi waa ji nag loolu bi mu ko jaaxalee mu daal ne ko waaw yow fi mu ne nii lan ngay sante yàlla yow yaa ngi nii da silmax say tànk dagg say loxo dagg kon looy sant ban xewal ngay wax ne moom la yàlla xéewal ba nga koy sant mu ne ko damay sant yàlla ndax yàlla may na ma làmmiñ woo xam ne mën naa ci di di ko ci delloo njukkal di ko ci zikkar waaye yàlla may na ma xol bu bu bu bu set xol bu sell boo xam ne xol bu ragal yàlla la waaye yàlla may na ma yaram woo xam ne wu mën a muñ la e, natt yi nga xam ne moom la ma teg waa ji nag daal di daal di xam ne nag kii lim ko wax nag lu lu lu lu am solo la waaw ndax li muy ñàkk ay cër yëpp teewul mu sant yàlla ndax yàlla may na ko kat euh, lamiñ wu mën a sa tudd yàlla waaye may na ko xol bu ragal yàlla waaye may na ko yaram woo xam ne dina ci mën a dékkoo natt boobu nga xam ne moom la ko yàlla natt kon mu nekk ñaari nettali yoo xam ne euh, ñoo xaw a nuroo waaye bokkuñu ku njëkk ki moom yàlla daf koo xéewale xéewal yu bëri muy jàmbat kii nag yàlla daanaka teg na ko natt yu bëree bëri mais muy sant kon li war ab jullit rek ak lu mu metti metti metti rek nga sant sa borom. mu ne bokk na ci li tax ñu bokk ci ashakirin yi mooy ñuy taxawe li ñuy wax salaatu duha ci ku ko man salaatu duha mooy julli yoor yoor ku ko man daal di ko def nee na dina tax ñu boolale ci ashakirin yi beneen ba mooy ngay def sujuudu shukur maanaam bu la yàlla mayee mbég bu la yàlla mayee ñaan gu nangu xéewal goo doon ñaan nga sujootal sa borom sujoot boobu ñu tuddee sujootu shukur nga xam ne da nga koy sujoot rek pour delloo njukkal yàlla ndax abu Abubakar moo ñuy nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa su ko su ko yàlla daan euh, xéewalee dara wala mu am lu ko bégloo nee na day daal rot rek daal di sujoot ngir sant yàlla kon bokk na mooy su la yàlla xéewalee rek ngay ngay sujjóot waaye bokk na ci li nga xam ne mooy tax euh, ñu boole la ci shaakirina yi mooy ngay xalaat di bàyyi xel di di di settantal xéewal yi la yàlla defal waaw di settantal bu baax xéewal yi la yàlla defal boo bokk na ci liy tax ñu boole la ci shaakirina yi xam naa li ñu am ci ay minutes mu xaw a jeex bu defee euh, wax wax ji jeexul dinañ ko mottali xëy na ci yeneen jamono yi di ñëw incha allah ñu gën a dugg ci li nga xam ne moom la ñu tuddee at tafkir ne niamillah mooy ngay setantal di xalaat ci xéewal yi la yàlla defal ana bu ñu yàlla mayee ñu dund ba beneen jamono incha allahu dinañ ko mottali xam naa di jégguluwaat bu baax di baalu xaq bu baax rawatina doomu soxna yi nga xam ne ñooy topp di ñaan yàlla yàlla na yàlla doolu ñu tawfiq in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ad diine wal xayaat di émission boo xamante ne si ne Tacko TV moo leen koy jagleel ànd rek suñu mbokk suñu oustaz Mounirou Fall Adina xayaat Hayaat di émission boo xamante ne si dinañu wax ci jamono wax ci diine wax ci lépp loo xamante ne si ne dundinu doomu aadama la Adina wal Hayaat di émission buy am fii ci Tacko TV alxamis bu ci nekk ak oustaz Mounirou Fall Adina wal Hayaat Adina wal